jàngeen jëf bés bu jot nii lay demee ah ñuy rafetlu ànd beex euh, Sen TV ni ñu koy defee bés bu jot ñoo leen di jox li ngeen yittewoo ci wàllum information dose bu njëkk bi nag dama ci ànd ak ki nga xam ne rek moom mooy El Hadj Ahmed Aidara El Hadj moom bàyyi yeewu gi <laughs> bu baax yeewu gi kay li booy naan nice good fine nice good fine waa tey moom sawaa moom parce que xam nga euh, mooy loolu daal bàyyil noonu rek mu sedd yeewu gaa ndax vitamine C waaw waaw waaw Ah? bàyyil daal yéen nii daal vraiment. Eh, jarul ñu koy waaw jarul ñu koy kii. waaw ah, parce que comme que sama noon a fi taxaw. ak ah, ban noon nga xam nga ko benn noon rek laa fi am. si ñi ma jàkkaarloo nii am noonu. Pape Bés waay. moom dafay xeex. ah li nga wax ne moom la moom la taxaw yëpp wàllum. xeex yu metti waroon maa taxaw mais defu ko. loo ko def. Euh, non bàyyil rek. loolu si maanaam da nga ko jox sa sëriñ Gambie ba. pour pourtant bi may dem jox naa ko. ba ngay dem nga ko jox sëriñ. waaw non bi moom bi moom bi may dem la moo waroon jox yóbbal. jox la yóbbal defoo ko. nga ñëw andi man am naa lu ma fi bàyyi comme dab quoi. gars yi xam maa leen di paye. Ah, yooyu ndékki hmm. euh, añ. reer yi boo gisee du ma leen ko paye parce que guddi gi du ma fekk. Ah. mënu fi ne nag mënu ma yor kër ga yor fii. ah ku yàlla baaxal nag na faw ngay def. waaw loolu la même bugaan sax. bu bëree bëree bëri ak koy dimbale affaire essence. waaw di ko jàppale quoi même Bougane dama koy dimbali ci essence di ko jàppale yenn saa yi ci ndimbali muy jox nit ñi. nga di ko si jox am na ko ci lépp yow non dama nii rek. mais reer bi léegi reer bi ñu bëgg ma boole ko ci xam nga yooyu yooyu. non day métti day ëpp quoi ma lakkandoo nag. oui te xam nga te indee fépp la suuse. waaye <laughs> rek léegi daal loolu la ma bees mere. non après ma yëg def médiation. soxla ma ko sax. ah bàyyi ma waxtaan si nag ndox tànk jàmm. na dem ma dem bees moom. <laughs> la dem rek ma dem ñoo ñoo ko déggandoo kon kon ni ma leen ko waxee rek pàcc bu njëkk bi yéen kaay xëy fësal lay doon ñu dooree ko wax la tribune ana lan la xëy fësal ci kaw tribune bi li mu xëy fësal tey mooy Mouhamadou Lamine Massaly nee nañ koy woowee noonu parce que nit ñi dañ naan Massaly Mamadou Massaly mais ma na tuddul tuddul Mamadou Massaly euh, Mamadou Mouhamed Mamadou Mouhamed Lamine Massaly Lamine Massaly voilà lu mu xew la moom benn tànk ma nga rëbës ca waaw lu lu lu lu mu def ba ba. la sabab lu ni mel nag mooy am xas woo xam ne daal da ko xas Aminata Tall daal yëkkati ay kàddu yi xaw a euh, saayre. yan yan xeetu kàddu waaw kàddoom yooyu daal la mu xamle rek mooy daal yoo xamante ni daal euh, Aminata Tall daal mm-hmm. nee na ko daal. Euh, ci wàllum politique daal. am hmm, lu mu wax waay ayof lan. déedéet daal nañ bàyyi ba ci revue de presse. moo wax ay ayof ñoom yooyu. waaw ci wàllu politique ko ci. voilà jëmale ko ci Aminata Tall mi nga xam euh, tànk bi benn tànk bi. du conseil économique. waaw te moom nee na kàddoom yooyu du ci dellu ginnaaw. ah déet. waaw kay waay. nee na ci dellu ginnaaw. moom beneen tànk ba du fekk beneen. ah looloo jar a nag. ci kanamu yéen léegi nag dinaa la wax. Mhm. ci kanam. li tax moom masali mu ne euh, mu wax lolu ndaw si ah, ci kanam ding mako waw ko waaw kon jackson waaw parce que ndaw si aussi war nga ma laaj lan la wax ba masali war ko war ko ma war ko man kay way kay ñi and ak karim wad nak mom seen ginaaw ba ndang fim nek ni ah lu lu xewati parce que am nañ dal ap euh, euh renfort adhérent waw renfort bu ah, bes dafa am ku dikk renfort sëñ Modou Karam bakel <laughs> mat na renfort nak waw karay Karim maanaam Kara mooy Karim. ah Kara Karim e Kara et. Karim waaw kay Karaay Karim. Karaay Karim waaw waay taxawal na daal maanaam euh, kii boobu daal taxawal na ko. coalition pour jàppale kon. Euh, pour jàppale. doomu doomu njiitu réew ma woon. Ah, Abdoulaye Wade mi nga xam mooy. Karim Meïssa Wade. ba tey lu ñu wax si le populaire. le populaire balaa ñëw ñëw sax ci indi ñu mottali info bi rek ak garde à vue bi. waaw te Mamadou waaw kay. parce que Mamadou Massaly nee Aminata Tall mom mo wax ne ndaw lo xamni da nga gëm sa bop waro top ab magat mo xamni du wax deug da leen di xelal da leen doon xelal. ah mo len don xelal non ci ay kàddu waaw kay waaw kay voilà. Mamadou Massaly aussi. gis sa boppam ne ko gis ci boppam ne ko ab ndaw loo xam ni xarañ nga compétent nga gëm nga sa bopp. yor nga ay bagage di ay qualité yu mën a yorub réew. waro déglu ko xamne dal daal sërëma oyof ci politique. mu lay xelal. Aminata Tall mo ni xali bu wolu bopam gëm bopam dal waro top ak magat mo xamne ne du wax deug mo mo len xelal lolu ak ku si nekkoon daal. masale tamit ne ndaw di seun bo xamne xarañ nga compétent nga. yor nga ay bagage di ay qualité yu jitam rew te gëm nga sa bop it waro di déglu ko xamne sërëm daa oyof ci wàllum politique. ñoo yóbbante kàddu yooyu ñoom ñaar. waaw kay léegi nag Massaly ñu convoqué ko. garde à vue ko oh, dañ convoqué tey la koy jébbal procureur ñenn ñi ne tey dañu koy defeere yóbbu ah, ko dem kon démb fa fa la fanaan waaw. kon tey du tànk ñaari tànkaa nga fa. benn bee demagum. ah kenn wax kenn waxagul ci moom mbir ko kon. dogal ba war dagul déedéet non non déferment ba demagul <laughs> demagul demagul rëbës moo tax nit ñi jàpp ne kon. benn tànk ma fa nekk. en attendant waaw kay en attendant les événements. ñuy xaarandi li ci des ñuy xaarandi li ci des. ah kon daal waaw. les populaires nag ñëw ak ñun ci demu président Macky Sall ba. ca Sédhiou ca yëpp nga ca mbedd di taxawaal. amuñ fuñ fanaan ci kaw gàttal. ndax lan infrastructure d'accueil ay hôtel ak ay bërëb yu baax yu mérité yu ñu leen dalal këru personnalité yi lañ génnee nit ña pour premier ministre bi ak ay ministre am fuñ fanaan. amul makkaan bu bu dalal loolu. waaw mbakkan waaw. léegi nag ah la mu jur nag. ak Sédhiou la tur bi yëpp. waaw mi ngi nii am na ci ay ministres yoo xam ne sax diggante Sédhiou Kolda la ñuy daw fi mu nekk nii dañuy def navette par exemple bu tëdd jotee ngeen daw. daw dem waaw ngeen daw dem waaye Sédhiou daal ci kaw gàttal euh, lu yàlla xam doy na daal. kon noonu la fa Sédhiou tëddee. waaw kay comme si quotidien nan lañ fa mën a gis. ca bët Saalum réew ma la ñuy des ba tey. Mhm. ak dem bi ak dikk bi. diggante waaw diggante Ziguinchor ak Dakar. waaw dikk bi ma def ne léegi war na oyof ak ak bato yi nee nañ njëg li wàññee nañ ko sax prix ba. waaw mais maire Ziguinchor di Ablaye Balde la mu xamle daal mooy affaire yi ay marto la dóor la arnak la naxaata la. ah dix ba cinq mille. Ah. ñu ne ay marto la. non yow xaaral rek ba revue de presse bi Ablaye Balde dina la wax lan moo tax mu ne. affaire bi naxaate la yow kay xaaral rek. kon marché bi réew mi euh, réew mi nag lu wax moom. réew mi quotidien ñëwaat na ci mbirum Maodo na tamit ci Bekay Diop mi nga xam ne président xam ne koo seeti woon démb di ko jaale. Bekay Diop waaw waaw. ñu bëree bëri na xalaat ne est ce que moom it du fàq. risque la nag ci bokk gis-gis bu président Pape Diop ndax xam nga ne. Ah, waaw ca tund ba Kolda ak li ko wër moom. Bekay Diop kat moo fay numéro un. bokk gis-gis waaw dakaa mokk ba mu ne rumbu. waaw kay léegi nag bu demee ca président ak affaire moom. lu mm. yàlla xam doy na gauche baa ngi nii nag. waa gauche. waa LD ay AG e ay ñoom it seen ak yooyu surnal bi nee na daal. ñoom lan mooy nekk avenir u ñii ñoom ndax dañuy booloo am ab candidat wa illaa ñoom ndax dañuy topp ci ginnaaw topp ci kii parti yóbbaale ma euh, daal journal bi daal samp na ci laaj tey ah xëy na daañu si tontu ñoom waaw laaj waa si biir xëy na daañu si tontu laaj waa ngi si biir grand place ndax tontu baa nga sax wala lu ñu ñëw lu leer candidature présidentielle 2017 waaw xalifa Sall fii weeru juin la ko parti socialiste di samp. kon Khalifa Sall lañ wax ne moom lañ. wax ne moom wala ñu njort ne mooy nekk. ah déet non non kii kii kii kii kay. kenn ko déet kii kii kay lim bind kay dafa leer fii ak weeru juin la ñuy samp Khalifa Sall mooy nekk candidat au parti socialiste. teg ko si jàll bi ngir nag mu war a jàkkaarloo wala bokk si ñuy samp seen dënd 2017. waaw yegg ci rek jàkkaarloo Macky ndax Macky moom mooy doon candidat APR ba pare président sortant. fan nga a gisee ab ah président sortant. waaw dana jàkkaarloo dana jàkkaarloo ñeneen nit. waaw waaw non du ñàkk ñeneen ñoo xam ne samp seen dënd. Mhm. nekk samp seen dënd. Euh, euh, euh, Walfadjri ndax samp am na ko. gis nga Walfadjri sax foofu la ñëw tey ci présidentielle 2017. nee na xam nga dañ ko doon laam-laamee. waaw. naan Khalifa Sall candidat au PS waaw wala déet. mais affaire bi mujj naa nekk de nee na mi ngi saay yu buñ xëyee day gën di xeeñ. ba sournal bi nekk France la lettre du continent. nee na amatul dut léegi. kon kay doon na ñoom nag am nañu ay xibaar yu leer. ne Khalifa Sall mooy nekk candidat au parti socialiste 2017 journal bi nag wax wax ñu lan moo tax ba Khalifa Sall nekk danger. danger si. wóorul ci ñi fi ne. <laughs> ci waa après rek Macky ak ñi ko wër. le pourquoi moom la sournal bi samp. wax na si le pourquoi. ma ne la Macky Sall ci boppam wax na benn jegeñaaleem ne ko. wax na benn jegeñaaleem ne ko. mu ko wax ah. président sortant. wóorul muy dem deuxième tour c'est pas sûr. Ah, risque la kon jortu na eh, eh, ne. dama ne même bu dul xalifa Sall sax fii ci Afrique président nga dem fi deuxième tour wóorul. wóorul xoolal léegi nag loolu la wax waayam ci ne ko nag nañ def le tout ba gagné premier tour te pour nga gagné premier tour il faut capital bi nga gagné ko te capital bi kat élection ñu génn Khalifa gagné. moo gagné. ok ay calcul de. voilà léegi nag loolu nag mooy risque bi nag. aajawul doon mathématicien pour xam risque. non non non coowal Aminata Tall ba. ah Waré waaw Waré Sarr lu mu jox moom. Waré Sarr journal bi nee na bu dee Momadou Massaly looloo tax ñu jàpp ko Waré Sarr daanaka lu mel noonu la wax. te ñoo yokk ci xan bi karaw. waaw kay moom Waré Sarr. ba tey baax na le témoin kay am démb biir AFP ñenn ñi ne am na ñuy dox ay tànku jàmm daal. seen ñoo barka seen réunion bi ñu doon mujj di amal. Mm-hmm. gars yi daal waxtaanee nañ fa affaire médiation. journal bi ne na ab médiation waxtaan woo xam ni ña nekkoon ca ndaje ma yëpp nee nañ xaw ma kan moo seen na loolu waaye waxtaan waxtaanee wuñ fa luy nuroog picc. ci médiation. dafa néew ñëpp ko kon kon kon waxi kasaw kasaw waxi naq sa xandang lañ fa defee woon. naq sa xandang dégg nga. Ah, ba tey baax na quotidien am na keneen ku ciy wax. le quotidien moom ñëw ak ñin ñëw ak ñin ci ateew Karim Wade. ah àtte waaw journal bi daal ci kaw gàttal ma mbay. lu mu wax. alphabet procès la ñu defal A ba Z. A ba Z di sa waaw. A acharnement Aliou Ndao Antoine Diome. <laughs> B bi boo boursi boycott. C CREI code compte. D jaase. E El Hadj Amadou Sall. F forcer le passage bu ma ko waxee ba xam nga day jël temps. mais bàyyi ba revue de noonu laa ko waxee. booy dem leen jàngi booy dem leen. leen na ma mënul alphabet bi. alphabet bi foofu léegi leen na ma defal ma ABCD. mënul booy yii le soleil. le soleil yéen kaay ñëw naa ngi ci Sédhiou. la ñu tënk daal ne moom la ñu soxla ci ay milliards ngir defar tund wa toll na ci juróom-ñetti téeméer ak juróom ak juróom fukk ak juróom-benn. ah kon nag Sédhiou na 856 milliards ah. kon Sédhiou moom. ah déggoo li ma la wax ñoom kay fi mu ne nii. kon la feebar dëkk ba daal lii ko war a faj. Hmm, kooku jàngoro libération. yaa ma neex la ñu jàpp de. fu yaa ma neex am jaglelee ko Africa Énergie. ñetti téeméer ci ay milliards. moom laa yaa ma neex photo Aly Ngouille Ndiaye baa ngi nii. li ñu doon wax sànq ci waa AFP Pape Sagna Mbaye dëggal na ko. dikkaat na ci waaw. nee na ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekkoon daanaka xaw a jege juróom-ñett. kon dara bañ déggee xibaar bi sax dañoo tiit. daraay médiation amu fa. amu fa ñoom Moustapha lañ àndal. tey di suba. enquête lu mu fës. waaw moom nag la mu tëjee nag moo doy xam naa moo tax sa bees teg ko ci suuf. lu mu def noonu. <laughs> dossier daal reportage bu yaatu la ñu def tey. ci lan la moo nekkoon ñi nga xam ne dañuy siif xale yu jigéen ñi. siif lan. di viol daal. xale yu jigéen ñi nga wax. te mbir mi ni mu taxarnaasee soxna yeeg yëpp sax. jigéen ñi lañ wax ñetti junni ak juróom-benni téeméer ci benn at. 3600 si ay viol. waaw dakaar Thiès ak Kaolack moom ñoo jël coupe bi. yow ana foo dëkk. Tëngéej ah Tëngéej. bien vrai que si Dakar laa bokk waaye maa ngi ci ak Kaolack dëkku bees ñoo jël ndam bi Dakar boo boolee non nii daal la ñu teglee nii plateau bi rek gars ku yéeg ñu takkal la viol moom siif jigéen ñi Dakar ñoo jël médaille d'or déggoo ma de Thiès argent fii moom yéen luq la ñu fi. Kaolack la dëkk ñoom bees bronze. bronze <laughs> waaw kay ñii daal sa waay lii daal. kon classement baa ngoogu. waaw maa ngi dem euh, Sen TV nag am na koo xam ne recruté na ko ku bees. ku mu du ma tudd tur damay bàyyi ba ci revue de presse bi ko rek. c'est que nag ñun suspense yi ñuy bàyyil mooy. loolu ah, RTS la ne woon daal jàpp nañ ne nag li mu jege Ablaye Wade moo tax temps yi gars yi yóbbu ko au frigo mais daal léegi. génne ngeen ko ci frigo mi ngi Sen TV waaw. waa kër gi la nag. góor la wala lu mu ci doon góor dé fistel waaw moom laa lay laaj non jëli woo ba tey maa ngi dem journal la non non maa ngi dem maa ngi dem tëjal tëjal ñu journal maa ngi dem kon dig daje ah, ci kanam lay doon ah, ah, ah laata ngay yëg jàkkaarloo gars yi ah waaw kay jaa ngeen jëf kon boo leen bëggee xam eh, ki nga xam ne rek moo fi dikk yees déglu leen Ahmed Aidara si revue de bi si kanam tuuti lay doon man nag 7h45 maanaam ci kanam tuuti dinaa fi dikk jukki leen xibaar yi ba mu jàppandi